Euh, baatu jom nag gor rekk a dim nawleem damay wax jom ba jom jeex bañ a des gannaaw dong la kon nu bañ a des gannaaw ci sunu ci sunu morom jaam ñu nga xam ne noo bokk di jaam képp mu jë bu jëkk ak mu mujj nu am jom yi bañ cee des bañ a des gannaaw ci ñoom gor ba gor jeex bañ a ñaaw rekk la nu góorgóorlu waaye ñaawal suñu bopp ci lenn nag suñu kem kàttan bu ñaawal suñu xel bu ñaawal bu ñaawal suñu xol mu jëm ci yàqu bu ñu yàq suñu jëmm loolu lépp nag soobu yoonu yàlla rekk moo ko mën a maye sëriñ bi dara andiwu ko fi loolu la fi andi woon sang bu baax ba rek gindi nit ñi jëmaleen eh, ci seen borom wombat leen jëmaleen ci seen borom ku jëkk ku mujj yoonu teeg ñëpp a ci am amul kenn du ko weesu foofu te sa loolu sëñ ku ne xam ne sëñ bi loolu rek ko fi andi biñ ko gisee boo ñu ko noppee gis ci loolu rek la nekk kon lu nu lu nu ñàkk-ñàkk euh, solo war naa na noo xam ne nag aw jaam lanu jaam yi suñu borom lanu jaam nag la koy musal nangul borom ba bu ko nangulee rek mucc bu jëkk ba fi ba dafi jamono jaare nit di moom moroom ja jaam yu nangu yi dañ ko daa foyee jaam bu nangu njaam bàyyi ko ca ngóor ga la bokk loolu lañ daa taasoo di ko def di ko wax loolu nag diggante jaam ak moroom ja moomeel gu jaam moroom ja taxu yooyu kaddu taxu koo jóg diggante jaamu sunu borom bi ak boroomam kaddu yooyu moo ko tax a jóg ngeen dégg ko bu baax ngeen dégg ko bu baax a baax lekk naan andi wuñu fi sol bu mu rafet andi wuñu fi dugg oto yu rafet andi wuñu fi étage yu kawe andi wuñu fi li ñu fi andi mooy topp ndigal bàyyi tere bëgg lu baax ba bañ lu bon di def lu baax di daw lu bon loolu mooy nu jig leneen jigunu kon buñ fanaanoo nit mën na fanaan ci loolu bu jeex mukk noonu rek la waaye noonu dong la demee nag du leneen eh, doy ak eh, waaju riij ji nga xam ne suñu borom da koo bewal kàttanal ko mu mu kàddoon teeg suñu borom fas yéene yàq aw jaamam ñëpp kooku muy iblis kooku rek moo ne ci suñu biir ak suñu doyadik bopp nag suñu doyadik bopp doy du doomu aadama topp sa bakkan gaaw a mer euh, ëppalante adduna xëccoo añaanante Eh, yooyu yu dul jeex mukk warante naxante xeet yooyu nga xam ngeen ko topp leen ko rek yu bon yooyu yëpp ku ne xam na lu bon ku ne xam na lu baax xanaa kay def lu baax moo moo jafe ndax doyatu doomu aadama ak yàqkat bu mag bi waaye ku ne xam na lu baax ku ne xam na lu baax ku ne xam na lu baax ku ne xam na lu lu rafet ku ne xam na lu ñaaw ku ne xam na dëgg ku ne xam na lu dëgg loolu téere yi sax foofu rek loolu rek leen tax a jóg li ñuy bari bari bari waaye mënoon naa mënoon naa mënoon na gàtt ndax kàddu yi ma leen wax rek la moo fi indi woon sang bu baax ba ak ñi mu gënoon ay nawleem yi mu gënoon te jiite leen moo fi indi sëriñ bi leneen andiwu leen fi kon nanu góorgóorlu bu baax nanu góorgóorlu bu baax lu fas yéene tegu ci yoonu njub sunu gem kàttan bu ñu tegu ci yoonu njub rek li ci des lépp yomb na waaye feeg teguñu ci yoonu njub njub itam waxuma mu dinu yomb waaye duñ duñ xam lu duñ xam yoon yoon wu nuy musal day loo xam ne buñ ci jógee rek dañuy xam lu day da mën naa kii waaye daal yi maye maam jaar yi rek ma taxoon a jóg sant daayira maam Jaara yi rek moom moo taxoon a jóg xam ne xam nañ li ñu nekk xam nañ fi fi ñu jëm xam nañ fi ñu toll def nañ ci seen xel yëpp def ci seen pëstéef yëpp def ci seen yitte yëpp def ci seen i jëmm loolu xam nañ ko na ngeen xam ne xam nañ loolu buñ leen mënoon sant daan leen sant daan leen gërëm buñ ko mënul dana dan ànd ak yéen daan leen gàttanu ànd ak yéen suñu kem kàttan wommatu wommatu wommatu jëmi yoon wi nga xam ne sunu sëriñ bi bàyyil nañu ko sóob nañu sóob nañu ci te mu gën jëm jëm jëmenu ca njariñ ya ca ngëneel ya ca xéewal ya ca àjjana ja ca ngërëmal yàlla noonu rek la demee nan xam li xew li nu fiyen dinañ ko xam li nu jëriñ nañ ko xam li nu musal nañ ko xam li ci des lépp loraange la suñ musiba rek la gis ngeen yéen kenn ku nekk mos na ña mos na dund kenn ku ne mos na dund xam na ne dund neexul waaw kenn ku ne mos na dund ndax ñamat li bari na fitna ji bari na coono yi bari na jàngoro yi bay wopp yi bari na ñëpp ci ci loolu la ñuy xëy di ci gont kooku xam nga ne neexul kon loolu rek war na noo mën a yee lanu ciy musal nag ci mën a mën a wéy mën a wéy ci fitna yi mën a muñ wéradi yi mën a muñ ñàkk gi mën a mën a mën a am am di mën na bañ a beewloo nu di ko jëriñoo di ci jariñ jaamu yàlla ñi di ci jaamu yàlla lu ci dul loolu lay mooy loolu lépp adduna ni ngeen ko xamee kenn gën leen ko xam kenn ku nekk mos na kenn gën leen a xam adduna adduna neexul yàlla loolu loolu moo loolu moo aw adduna neexul te mooy dëgg li koy tax a neex nag mooy nu nu sóobu yoonu yàlla li li nu sëriñ bi sóob bàyyil na ko fi te wàccoog noonu loolu moo ñu ci musal buñ ci buñ ca dëggoo te aw ca yi ngeen mos ci xeeti metti it xeeti naqar yëpp ci dund yëpp dana woyef du leen tee dem du leen tee dox jëm ci yàlla kon ñàkk xam rekk fi nekk waaye gay xam gaa yi xam yàlla xam ëllëg kënu jëm ñoom dem nañ seen yoon ah, am na ci ñoo xam ne dañoo génn ci àll bi dëkk ak njaay àll yi lekk ci xobi garab yi loolu lépp xam màggul suñu borom rek loolu lépp xam la nekk àllaaxira rek moo tax ñu gedd lépp génn waaye am ñoom yàlla leen ko defal yàlla leen ko dimbalee am na gaa yi yàlla ñu ne ci biir nit ñi ku ci mel ne sëriñ bi liggéeyal yàlla rekk ci nit ñi moo ko fi andi jërul lenn ndaxam eh, soo bu yoonu yàlla du xañe du xañe lenn njëriñi àdduna ndax loolu yàlla def nanu teral nanu ba noppi teral na doomu aadama ba noppi wàcc na fi ay xéewal yu dul jeex ci wàll yépp ku nekk ci yoon ba du tee nga mën a jariñu ci xéwal yooyu te doo la yàqal sa yàlla sa diggante yàlla du la yàqal sa diggante àllaaxira waaye loolu nag dafa mat a xam nekk ci adduna ji société bi di xool kenn ku ne di xool sa moroom di xemem di wéy rek di xemem di wéy rek te xam ne kat bu ñu la joxoon adduna li ci biiram du tax mu amal la njariñ te da ngay dee wàcc ko fi loolu war na ko mën a xam war na mën a yow dund ku ko mos te it yàlla bàyyiwul ak sa bopp ndax bu la bàyyi woon sa bopp sax da war a xam lii lu mu doon ak lu ko jar waaye bàyyiwu na suñu bopp danoo daa teel a wàcc ay yonant mu ñëw ci mu ñëw ci jàmm def leen nii def leen nii moo leen di musal dëkkul ba ci sëriñ bi la ko taxoon a jóg la lañu taxoon a jóg rek moo moo ko taxoon a jóg moo ko tax a jóg wax nañ lu ne def na ko ngir gindi nit ngir gindi jàmm yi lu ne jéem na ko def na ko ngir wommat jàmm yi jëm leen ci yàlla kon eh, nu xamee ko noonu xam ne adduna neexul de te jarul dara buur yi amuñu lañ bëgg ndax lañ ëmb góoru yàlla gi rek lañ bëgg te ñu ko am lu ñu bëgg nekk ca kanam boro wërsëg yi alal yu bari yi amuñu lañ bëgg waxtu wu ne ña ngay ña ngay ña ngay xalaat kilifa yi ku ci jëmul ci yàlla amoo la nga bëgg te doo ko am nit ki la mu bëgg moom euh, jëm ci yàlla rek ko ko ko koy may doyloo yàlla rek koy may jaamu yàlla rek koy may kon jëfewul de wax dëgg yàlla yàlla waaye nag euh, ñàkk xam rek ak réer waaye ko xam ku ne war naa xam la lay jëriñ ku ne war naa xam la lay lor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 góorgóorlu ci fonk suñu diine góorgóorlu ci taalube góorgóorlu suñu ci suñu diggante di jëfandikoo makaarimul axlaaq jikko yu baax yi di ko jëfandikoo jëfandikoo suñu diggante jaamu yàlla gu rëy la toyaaba ju rëy la waaye njëriñ lam lay génnee sa sa diggante sa moroomi jaam rek da koo jaroon jubóo ga ngay jubóog sa moroomi jaam dimbali gën nga ànd ñoom ga nga ànd ñoom ci nam gën a rafete di leen jëriñ sa jëmm di leen seen ci sa jëmm di leen jëriñ sa ci sa doole di leen jëriñ sa di leen jëriñ seen sa alal loolu lépp ku ca yemoon képp itam da nga gis njëriñ la te mu dana ko jar sëkk waaye loolu euh, yërmande suñu borom rek la buñ ca góorgóorloo yërmande suñu borom moo nu ko moo moo moo moo moo koy moo moo koy wëggal moo nu koy wommatal boole noog moom mu di ci dund te duñu yàqal suñu digganteeg suñu borom duñu yàqal suñu digganteeg àllaaxira ka nu jëm nañu góorgóorlu bu baax ah, jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf ndok bi nga xamee ne eh, yéen a ngi jëkkante yéen a ngi rawante néewu leen jigéen lañu loolu la woowu lay moom jeex na soxna su baax soxna su baax saa ngi nii woowu lay moom jeex na jigéen la wala lan lan laa déedéet loolu jeex na loolu woowu lay jeex na woowu eh, lay jeex na kon jërë ngeen ndokk bi ngeen ko xamee waaye na ngeen ko gën a xam bu baax lu baax kenn moom ko ki ko bëgg nangu ko wut nangu caa sonn kooka yooyu lu baax kon na ngeen góorgóorlu bu baax te xam ne dog ngeen yoon wa waaye nag ngeen gën a góorgóorlu bu baax te te te yóbbaloo leen di tax a mën a dox muy gëm rek nag gëm rek gëm gu wér gëm gu wér ak jëf ju baax gëm gu wér ak jëf ju baax kenn ku ne yaag moom la gëm gu wér ak jëf ju baax loolu moo moo ñuy dimbali ci lii lii lii waxtaan bi loolu moo ñu ci dimbali mooy tax nu mën a gën a gindiku suñu bëgg suñu diggante suñu borom moo tax nu gën a mën a gindiku suñu diggante ak àllaaxira mooy tax nu mën a gindi ko suñu diggante sëriñ bi waaw gëm day yées ak yokk loo gën a jëm ci yàlla mu gën a yokk loo gën a jëm sàggane yàlla mu gën a wàññi waaw kon nit ki lu mu gën a jëm ci yàlla di gën a kawe lu mu gën a sàggane yàlla di gën a suufe loolu rek la deme kooku moom yàlla suñu borom noppi na ci eh, kon nag nanu góorgóorlu bu baax wax dëgg yàlla doy dëgg doomu waaye yonent yi boobu dañuy ñëw ba léegi ci loolu rek lañ nekk sëñ bi lim fi liñ ko gis ban gën a noppee gi ci loolu rek la nekk gaa yu baax yi nga xam ne ñi ngay ñi ngi fi jéem seen kem kàttan ña nga xam ne xëy na suñ borom moom bind leen ci baax bind leen ci raw teewut jéemuñoo ki xam dara ci loola yàlla rek la ñuy jéem a xam alaaxira rek la ñuy jéem a faggu kon euh, al adduna si moom euh, doy du doomu ak liggéeyu mbër mbër mu réy ma fas yéene fas yéene al fas noo alak nam nam nam ala ko loolu rek mooy mooy waaye nag bu nu góorgóorloo te dëggal yàlla moo nuy musal ci moom bu nu góorgóorloo te dëggal dañuy not sunu bakkan fu neex nu jëme ko fa waaw tàggat suñuy jikkoo te yàlla tax tàggat suñuy jikkoo te yàlla tax man cee jariñu man cee jariñe man cee jaamu yàlla man cee man man cee sell di dem ba man cee defaru ba nekk nit ku baax nit ku baax loo ko lu baat boobu lu ko nit jënd jar na ko waaye baax baax baaxu yàlla lañ wax waxuñu baax yi rek waxu moom suñu baax suñu diggante rek loo xam ne teguñu ko fenn loolu bëgg ko la tagg wala ku la bëgg gën a dolli nga wala koo ma ko nga bëgg a gën a yilife googu baax moom euh, wax la rek du dara musiba la rek sax ndax day tax nga gën a jeyu gën a jëm ci sa bopp te mënuloo sa bopp dara te loolu loolu jëf yooyu yu baax yooya ngay def te sa moroom yi jaam tax nga di ko def bëgg ñu naw la bëgg ñu weg la bëgg leen a mën a jariñoo yooyu yëpp du la jariñ dara du jariñ dara de amul benn maanaam amul benn solo amul benn solo nanu góor góorlu dëggal nanu gëm nanu fonk suñu gëm nanu fonk suñu te te góor góorlu dëggal bu gëm amee dëggal am rek ah, léegi càggante sori la ci lu ci des lu ci lu ci bari eh, gëm ga day doyadi eh, dëggal ga di di di wéradi waaye bu nu gëmee te dëggal ba noppi dégg ndigal yaa ngi fi dara jógu fi la fi yonent bi doon yonent wax yëpp mi ngi fi li fi yonent bi andi alxuraan mi ngi fi lay xadis yaa ngi li fi yonent bi daa wax mi ngi fi bi sëñ Tuubaa ñëwee dundal loola nekk ci ba noppi koo gis loolu moom lay amut doye di rek moo am waaye yal na nu may kattan suñu borom may kattan yal na nu xiir ci boppam yal na nu gën a xiir ci sëriñ Tuubaa yal na nu boole ndimbal ban mën a tàggatu ba mën a sóobu yoonu yàlla mën a jaamu yàlla ni mu ko bëggee mën a fàggu suñu alaaxira fa nga xam ne xéewal lépp ma nga foofa xew li ñu gis fii du dara du dara du dara waaw euh, moo du dara euh, moo ndo ndo ndo ndox yeneen foofa ndoxum ndoxum dégg ndoxum dégg boo ko xoolee foofa ndox yi yëpp lu mu sell sell ndoxum dég rek la la la lay saf dégg dégg bu nëx laa wax de waxuma dégg bu sell ndax bu nëx man a ah, ah, càll bi laa yaroo <laughs> waaw ñam ya foofa eh, eh, boo ko xoolee ñam yi fii eh, dana wuute lool waaw dana wuute lool laaxu caaxaan yi sax ko dàq ah laaxu sax ak xaw yu bari bari dama koy fàtte <laughs> yooyu ñam yi li ñuy neex neex neex neex neex yi gën a naqari yi ñuy dunde yi yi ca gën a naqari mu noonu lay mu foofa lay yéese ci àlaxira déedéet ah jotu si sax déet si jotu sax ndax gi ginnaaw am nga lu ay gàllankoor ba sax loolu sax jàmm ku ca jot na am naqari sax ku ca jot déedéet loolu sax amu fa moom kay moom kay mucc rek mucc rek waaw mucc rek mbaa ñàkk mucc waaw eh, nan góorgóorlu bu baax rek nan góorgóorlu bu baax gàttal bi nag li nga xam ne gone yeeg ñëpp mën nañ ko dégg moo tax ma di ko tënk foofu góor góorgóorlu ci njub góor góorgóorlu ci fonk suñu diine nan góorgóorlu ci fonk suñu taalibe loolu dugg na bopp bu ne waaw nan ca góorgóorlu buñ ca góorgóorlu rek mu indil nu mu wommat nu defar nu euh, kattanal nu euh, mbay nu mucc ak tey mucc ak tey euh, nu daal di yëg tàmbalee yëg texe waaw yëg texe boo ko xamut ci ci kuy dund mooy daray àdduna dut la saf te yàlla tax loolu da ngay ci ku ci àgg daal yëg texe moom ba ba ngay taxe nag yàlla xëy na kanu jëm jëm dem àjjana wala sax àjjana taxu laa jóg ngërëmal yàlla dem bokk ci nguuram nga moo la tax a jóg ndax dañ ne wax dañuy wax ne àjjana ngërëmal yàlla moo dàq boo te boo gisee ñu moo dàq àjjana nag eh, eh, eh, kon daal di mel ne ngërëmal yàlla moom ci lay maanaam mooy bokk ci nguuru yàlla gi rek <laughs> waaye nag nee nañ ngërëmu yàlla moo dàq àjjana moo tax gars yi yàlla yi ngeen di dégg ngërëm ngërëm ngërëm ngërëm ngërëm rek lañ soxla ñooy wax nañ dëgg ñoo am na ci ñoo xam ne àjjana taxu leen a jóg waaw li nekk ci li nekk ci diine li nekk ci diine ci njariñ kenn mënu ko lim li may wax lépp diine rek la mooy li li li suñu borom doxale suñu digganteeg moom kooku googu buum moom ku yobu mooy ci sa téeméeri loxo boo ko amoon mooy ci mooy ci bu baax a baax a baax a baax a baax ma bañ a rëcc kon foofu laa ko koy yemale diine nan fonk suñu diine loolu lépp mi ngi ci biir diine waaw loolu lépp mi ngi ci biir diine nan góorgóorlu nan góorgóorlu ay njub nag moom dafa bari njëriñ waxuma njubug nag sunu njub bopp rek sunu njubug doomu aadama déedéet kooku baax na loolu tubaarkalla nax daan ci mën a jëriñu daan ci mën a jëriñe loolu ka wax dëgg yàlla njëriñ lu rëy la waaye nag googu njub taxul ñuy wax njub njubug yàlla la ñuy wax njubug yàlla moo moo mën a am mooy am njëriñ tey njëriñ lu wóor a wóor am njëriñ ëllëg te loolu mooy mooy bunt bi bala ngaa leen bala ngaa bala ngaa xam sa diine wala ngay eh, fonk sa diine wala ngay aw yooyu yëpp da ngay jub boo jubul moom yee yëpp sa yoon nekku ci nekkal ci yow kay nekkal ci li nga li la neex rek yaa ak sa borom yaa xam suñu borom moom fa tabaarakallaahu eh, jaam ñëpp bu ko sooboon yóbbu leen àjjana te dara du ko ca nekkal waaye jaam ñëpp bu ko sooboon yóbbu leen safara te dara du ko ca nekkal la ko soob def te dara du ko ci fekk waaw kooku daa mat a xam mat a nangu mat a jaamu moo gën a wér nan jaamu yàlla nan góor góorlu suñu kem kattan waaye jërë ngeen jëf daayira Maam jaare waxtaan bi yëpp yéene ko moom yéene ko moom dama ciy jariñu suñu bokk sama bokk yëpp man ciy jariñu waaye yéene a ko tax a jóg waxtaan yéen a ko tax a jóg kon sant leen yàlla bu baax nekk ci li ngeen nekk lu ngeen ca nekk xeeb leen ko lu ngeen ca def xeeb leen ko incha allahu lu ngeen feen di daan leen ko daal daan ko daan leen daan daan leen ko liggéeyal li ngeen li ngeen bëgg liggéeyal maam Diarra gi ngeen bëgg lu ngeen feen di rek daan leen ko defal ci maam Diarra ndax gis ngeen kër gu mag gi lépp yéen ko fi def gis ngeen daara jee lépp yéen ko fa def la fa ne gis ngeen ña ne lépp yéen la leen fa téye lépp yéen a loolu ndam yooyu loolu ndam ku ci yaakaar woon dara ëllëg itam ndam lu rëy la loo xam ne man na ko caakaayoo waaw kon yéen waaw leen góor jërë ngeen jëf waaw sant leen yàlla te góorgóorlu te xam ne tàmm li ngeen am ndam te ndamal suñu boroom amul fu mu yem amul fu mu yem dangeen di gën a am ndam rek ba fa nu tax jóg gannaaw loolu itam ngeen yéen daayira maam jaara yi ngeen xam ne wàcc ngeen def ngeen leen a war waaye nag adduna dafa am wàll ak boppam suñu xel yi ak adduna ci am wàllu boppam sëñ Moussa dafa bëggoon daayira bu ne am mel ma am maam jaara mu nekk mu ko nekkal ci daara ji loolu dafa dafa dafa dafa dafa dafa jug rek weesu foofa waaw ndax nag dafa am aada dafa am ndax euh, fi mu ne euh, ñeen fu ñeenti téeméeri ay maam jaara ñoo fi nekk ak lan juróom fukk ñeenti téeméeri maam jaara ak juróom fukk fa laaw seen liggéey tax na yor nañ daara ji mi ngi dox nam ware waaye dese nan ñaata ñaata maam jaara junni junni maam jaara yoo xam ne eh, eh, eh, wa war nañoo ñëw fekk si ñooñu loolu nag la ko tee am mooy liggéey bi rek man-man bi man-man bi ndax li ñu li ñu tollool mooy maam jaara yi fi ne di ñeen téeméer ak juróom fukk rek li aju ci ñoom ñoom ak li aju ci ñoom weer wu dee daañ ci seen dugal seen yëf dana dana mat juróom-ñeenti million yu teg weer wu dee bokk bokk nag ak ak ak yeneen fere yi nga xam ne nag sax man ne sa boole wuñ ko ak li nga xam ne moom la taalibe yi yenn ña ci ña xam lañ sax daal ci soxla ñu di ko ñu di ca def seen gem kàttan sax bokkul loolu moo tax ñeent téeméeri ak juróom fukk man-man bi foofu la toll waaye nag warlu gi moom moo di maam jaar daayira bu ne am fi maam jaar lu mu néew niiw xam naa loolu dafa xamoon fi mu jëm moo tax mu yemale ko foofu waaye buñ sañoon daayira bu ne ay maam jaar la fi am Euh, ngeen xam ne nag loolu foofu lañ toll euh, ko am maam jaare mu dugg gu ne sañ ngaa ñëw ñu arrêté ko ñu bind ko euh, waaye incha allah at mi lu ci luñ ci mën a dolli daañu ko dolli waaye nag kemtraayel lam ci mën a dolli rek te attan ko te mën koo doxe loolu lañ cee dolli loolu nag man la ci sama xalaat doo doo doo des ci wut xëj ak seen ndax pexe amul bu boobaa itam dañ koy dañ ciy sàkk pexe rek dañ ciy sàkk pexe rek waaw man man maanaam loolu ñu ay tegooy bant yu demee noonu xeet yooyu <laughs> yooyu pexe yooyu la ñuy sàkk waaw ah, ku ku ku sa maam jaar war a war a kii fasaase nga koy dañ koy daal di xam mu daal di loolu loolu loolu moom jeex koo xam ni sa maam jaar dafa war a néggandiku it da nga koy daal di xam fasaase loolu mu mënu cee ñàkk pexe mënu cee ñàkk ndax man man bi ma toll foofu waaye warlu gi moom ak seen yaakaar moom wax dëgg yàlla rëy na lool weesu na foofu waaye nag lanu bëgg sëmb bi moom lan ci bëggoon bul sañoon noonu ko sëñ bi saa woon daayira daayira daayira maam jaara bu ne am fi ay maam jaara waaye nan nan dox rek nan dox rek euh, suñu borom moom moom lépp waxuma laa nag ku yëngutu jëm ci moom moom ku yëngutu jëm ci moom moo lay moo lay moo lay gàttandu kon nan séentu ne euh, suñu borom moo moo nuy gàttandu ci liggéey bi Ah, ah borom liggéey bi nag borom liggéey bi nag borom liggéey bi nag moom fàggu na lu mat a fàggu digg moom boromam kooku itam doy na yaakaar doy na yaakaar ci ne fan ko bëgg ma màgg fa dana fàgg waa ngeen xamee ko noonu nag waaye yéen ngeen doyloo nag yéene ju sell ji ngeen am pëste bu réy bi ngeen am yitte ju ji ngeen am eh, eh, ba mën a attan jur seen doom tuddi ko maam jaara eh, wan wan wan won ganaaw lépp jébbali ko fi ci daara ji loolu loolu loolu boo loolu rek doon yoon boo leen ko yàlla fayee muy muy muy njariñ lu rëy rëy rëy teegal lëkk eh, kon na ngeen na ngeen xam na ngeen xam ne nii doxeen yi moo indi loolu waaye waaye waaye waaye waaye waaye waaye yàlla moom boo yéenee boo deful dara it bu yéene ji sellee mu fay la dencal la kon na ngeen xam ne seen yéene yàlla moom nangu na ko te dana leen ko fay te mi ngi leen koy dencal te keroog ba ba ngeen ci jot eh, keroo ngeen koy gën a soxla waaw boo jëfee nag boo jëfee mu mu mu mu fay la la yàlla suñu borom boo ko jëfalee da fay fulal la waaw jëf ji mi ko tàmbalee ni boo defee benn moom fukk fukk la la war na ko waral na ko jullit bu ne am na loolu yiw boo def fukk koy fayee waaye ñëw na ci alxuraan ne man nga def benn yiw mu fay la ko juróom ñaari téeméeri yiw kooku ñëw na ci alxuraan loolu lu mën na nekk waaye loolu foofu alxuraan foofu la ko yemale waaye eh, eh, waaye sañ-sañ suñu borom nag yëmul fenn man nga def benn yiw mu defal la ko ay téeméer wala ay junni fayal la ko benn yiw loolu sañ na ko loolu kon nan nan doyloo sunu yéene doyloo sunu positif euh, gën a gën a gën a gën a gën a gën a gën a gën a dolli sunu yaakaar waaw loolu lii ngeen sémbu euh, euh, sant leen ci te rafet ci njort te xam ne aada moom li ci aada mooy noonu ñu ko tërale te noonu rek lañ ko mën a tërale Eh, ngeen xam ne aada rek la waaye bokkut ak lan fa nu jëm bokkut ak lanu yéene na ngeen ko bëggee rek boo sañoon lu kawe seen njort seen kawe seen njort ci gone yi ci maam jaare yi moom ngeen fi fekk waaye nu xamee ko noonu ne war ngeen a xam ne aada yi dafay am aada mooy loolu noonu moo noonu la wax rek ñeenti téeméeri maam jaara ak juróom fukk ñu ngi ciy def juróom-ñeenti million weer wu ne bokkut ak yeneen yi ci yeneen yi ca des Eh, moo te te te nu waroon a am junniy maam jaara yu tefal waaye nag man-man bi moo toll ci foofu waaye dañu bëgg nag bu sañoon eh, ay ay junniy maam jaara eh, dañ leen di mën a taawu sàmm leen yor leen nañ leen war a yore jàngal leen nañ leen war a jàng yar leen nañu leen war a yare loolu mooy warti fi mooy yéene ji mooy sémbu kon nag na ngeen ko xamee noonu waaye boobu ngeen teewul ngeen sant yàlla bu baax te rafet njort te dolli seen yaakaar ngeen xamee ko noonu nag waaw ngeen xamee ko noonu sant leen yàlla bu baax te gën a góorgóorlu incha allahu lu ngeen fi indi daal nañ ko defal ci sëriñ liggéey bi sëriñ bii ci maam Jaara mii incha allah jërë ngeen jëf lool ndax jaaro sant rek la eh, jataay bi naroon naa naroon naa gàtt loolu ndax jataayu sant rek la waaw boo agsee fii itam kon eh, eh, ngeen jéggal ma rek te xam ne bu ma sañoon fanaan fee yéen incha allahu Cheikh Makhtar Ka dana waxtaan ak yéen bu ma fi waxtaan ak yéen waxtaan wu mel nii rek mu mel nii rek lay nii rek lay waxtaan ak yéen borom xam-xam la doomi taalu bi la mbokkum sëriñ bi la yooyu yëpp ngi ci fa tabaarakallaahu waaja nañ ko ba mu jekk yal na yàlla xeeb dolli kon dana waxtaan ak yéen ci ci lépp ci waxtaan wi bu ca noppee bu waxtaan ak yéen ba noppi euh, sëñ Omar mi euh, dana leen leeral euh, limu daay yi tudd seen tur noonu la waaw dana da loolu itam dañ leen koy kañe rek dañ leen koy kañe rek moo tax dañ leen koy sant di ko kañe ñoo yéen ñëpp da dana lima daara yi da daayira yi wax seen i tur ngeen xam ne yéen a ngi ci liggéey bi noo ngi ci ànd ak yéen incha leen ci mënal lu ñu ci mënal daan ko def incha allah kon nag noonu rek la dem jërë leen tàllal leen ñëpp tàllal amin ñëpp fasal ko yàlla fasal ko mu yàgg fi lool sunu kanam àggale waawa alwudu lafiyat fi najasaati min fi siirillahi jalla min xalmataaya bi ximaatin adiyaati min alukaas bi ajisin wal xisaamu ladaa acli tariqati xasmun bil xaqiiqaati wa min lawaasimihaa min xaajuhaa abadan wa hiya sariicatu fii batin wa xayaati ورفقة وعي إغوان لهم حمم مع الوفاء بصدق في العقوات والكل من جملة الصادات سورة يكفي المريد مريدا طاخواتي